yu bare bëri ci réseau yi est-ce que loolu mën nañ jàpp ne bu sincère la. non c'est très normal la. Mm-hmm. Euh, comme nañu ànd te li leen boole. li leen boole ñoom tasagul. Euh, ñu séddoo ak moom li dal ci koom. Mm-hmm. c'est c'est très normal. Mm-hmm. parce que bul fàtte ni euh, Sonko ak bart am nañu waxoo ci ay kàddu. mais coalition bi tasagul. xam nga coalition bi tasagul. donc mun nañ ko régler ci seen biir parce que boo seetee li koy firndeel mooy euh, bi Habib Sy ak Khalifa Sall nuyoo Macky Sall ca jam ñaajo ci ngoon gi wala ci suba ga bi ñu leen commencé am sikki sàkka la waaye wi askan wi génne benn communiqué nii ñi amoon photo te mën a photo te am sañ-sañ photo kese mooy photokat yi nekk palais de la république donc waaw ak donc ñoom dong ñoo mën a photo lu ñu jublu ci photo xalifa Sall muy akolaatante ak ak Macky Sall pour del ko génne li ñu ci jublu mooy jaxase waaye Yewwi Askan Wi ab communiqué lañu génne bu noppi siñe ko Yewwi Askan Wi pour leeral Sénégalais yi ni leen ni ñu meloon ba jaay leen ko noonu lañu ñu mel ba léegi donc yi jaadu na bu ñu condamné Ousmane Sonko euh, leader yëpp génne ay poste ben comme bu ñu comme bu ñu bu bu amee oto bu mbëkk kenn France ni suñu njiit réew post métit lu ko noonu itam la ñu amee sañ-sañ def post mhm. Facebook moom est là ak ak Twitter moom ak Instagram moom est là pour tout le monde ku nekk am nga ci sañ-sañu bokk ak nit ki loo xam ne dal dal na ko et puis mhm. xam nga dafa am wax naa ko sànq ci yàlla dafa am doxalinu politique boo xam ni ku nangu ba ñu yóbbaale la ci sa affaire la mooy comme li yàq làmb ji Ahmed Aïdara daf ko doon wax ni léegi kenn ñi meetu la commenter làmb mhm. ndax supporters yi bu Balla Gaye daanee mutloo boo xëyee boo nee mutloo ginnaawam tax na suuf ñu yendoo laa saaga loolu la ñu indi ci géopolitique bi fi nekk nii à chaque fois nga joxe sa xalaat ci Ousmane Sonko wala Déthié Fall wala keneen dañu lay considérer comme benn ennemi wala saaga la wala yooyu nag yow mi ciy bàyyi xel yow mi ciy bàyyi xel man boom ma waxee dama naan la yow yow yaa ma yab mais sa papa yabu sa papa mooy leader mooy sa leader bi ngay topp ba tax nga may saaga yabu ma parce amul benn leader bu ma mën a tey joxe sama xalaat ci ni réew miy doxee loolu moo tax sax nekk nii Ousmane sonk am na ñoo xam ne wóor na bëgg nañ ko bindal sax benn poste pour massawu ko mais ñëwuñ ko sax ñëwuñ ko sax parce que dañ leen di saaga. yooyu xoolal bala ñu ne ba nga bala nga bala la jooy jàpp ñu lay menacer ci abone ak désabonné xoolal. xamal seen i soog dugg ci wàllu politique ak émotionnel ak indiscipline nga xamal leen désabonnez-vous bu ma kenn déglu parce que taxaw leen may wax. bu ma kenn seetaan parce que mënu leen a sax décortiquer niveau bi may waxee hal yastawa lazina yaalamuuna wa lazina laa yaalamuun mënu leen a tolloo du xalaat du gis-gis te foofu nag la ñuy yóbbu politique gu Sénégal tey ba nga xamante ni bi kiy jàngat ci wàllu politique eh, gis nga yu mel noonu je donne un exemple tey ka moo nekkoon sa invité Doumou mu Cissé attends attends rek Doumou Ndiaye Cissé avec tout le respect bu ma ko ameel ak tout le respect bu ma ko ameel ni ma la def tey ñi ma koo def waa RFM ni ma la def tey ñi koo def waa Sen TV mm-hmm. parce que liggéey naa RFM liggéey naa Sen TV mu njaay invité nañu ko seen TV mu ñëw di toog di nelaw ndax sonn mais du décliner invitation bi parce que rek am na considération gum mm-hmm. parce que dañuy soog a lancé wu mm-hmm. parce que dañu nekk ci benn yoon di soog a jóg. ni ñuy wax ni mu ngi ci yoon bi yëpp non mu ngi ci yoon bi. bu ñu agsee bu nii nii laa koy waxee. parce que on se connaît nous tous bu toogoon nii laa koy waxee dama bu fekkoon invitation Sen TV wala Walf wala RFM du tarde comme nii mu tardé parce que yàgg yàgg naa ko invité yàgg nañu yàgg nañu ko invité suñu ay plateau mais dama ne ku toog di xaar fu Birahim ak Mansour nekk lancé fa lu toll ni Séclair gii boo décliné wala nga sàggane seen invitation tey déwén doo ko sàggane bu ñu ko fekkee jàmm incha allah mais dama lay jox exemple ak ci appréciation wu sénégalais yi ba ci même les leaders jotaay yi ñuy toog sax dañu fay bàyyi wàlla xel dayoo jotaay booba hmm. et c'est ça grave loolu moo jëkk nekk problème ci façon bi ñuy demander Sénégal mu doxee ko ci wàllu respect jàlla rendez-vous rendez-vous institution la boo joxee sa accord te sa wax mën a amal nit ci njëriñ nga bokk ci dialogue politique bokk ci ñuy woote pour ñu inscrire ci liste électorale nga bokk ci société civile sa kàddu di am solo ëllëg fu ñu la woo doonte ñetti ñi sa xool demal nga génne sa kàddu yonent bi fa wax ni bali ni wala bi aaya jottali leen ma li ma wax sama ginnaaw donte benn aaya ngeen may waxal kenn di ko déglu dina mën a jariñ kenn kooku di ko déglu mais bu ñu demee ba ñi nga xam ne ay ay waxkat lañ di jouer rôle bu am solo di choisir dayop média bi ñu war a toog nga xam ne yaa problème de morale sama dëgg jii nag ku ma xam moom nga ma xamee doo ma def la doo ma toog la ci institution après on passe comme ça après nag appréciation bi ci am jàmm day continué nañu wax dëgg après jàmm continué waat amitié bi continué waat. Mm. ku décliné suñu invitation tey déwén di nga di sawar loolu ñu invité parce que la sampoon la sampoon fële. Mm-hmm. la toxoon du ñu décliné mm-hmm. invitation. la ko fa sampoon moo sampuwaat fii. Mm-hmm. dañoo xamul rek comme li nga wax dina dem ba ñoom ñoo ñuy topp pour pour bëgg ñu ñu invité déet moom kay xam nga moom xam naa ne peut-être c'est ce n'est pas un lève-tôt. Mm. parce que.